Thank you. papa moo fi des te wàccagul. yaay dolil ma papa kay balaa mu dee lekk ay doomam ñoo war a lekk waaye papa bu dee xëccoo ak ay doomam ceeb. yow amul xanaa mënu ma may sama jaam ngir yàlla damay noppalu. yaay maa ngi day dem sama I'm a guy, Gorgonland. I must be doing over that. jonne jonne Johnny Johnny, Johnny Johnny, Kugai, I'm Yai Jimmy Devil. Katra Trala, Nente Gagonol, come tabitit, mo je Ataga, bal bu ngen ngen ruxal ko profondeur bu ko Ruhal rek Founder, gi fess acha acha acha gay o bol acha arbit bu टेना i kon amadou mo je kam tel wa Les joueurs sont prêts L'arbitre va bientôt donner le coup d'envoi. Max, Khalis Khalis, Jumni du le. Ah, quelle journée difficile. Ils vont me tuer ces élèves. Je crois que je vais prendre un taxi. Je suis tellement fatigué. Ah. Match maintenant, c'est très serré. après 20 minutes de jeu toujours 0 à 0 Amadou le ballon Amadou daf ko bëgg paajal oh là là quelle feinte bon dina am dafa mel dafa mën a football de par ñaari nit ñoo koy marqué le ballon toujours pour Amadou on a l'impression qu'il lui est collé au pied Amadou Amadou fas dawal bul paasagum bul paasagum dafa olso bu ko paasagum am dawal yow Modou Modou dina tegal sa xonde waxuma la woon nga ngeen yow xam nga ne lu sa papa jënd bal bi mo tax ngay fubal sinon tu te deful dara amadou ki accélère le rythme Ba marqué leen de bu mu doon tàngee ba le défenseur est sorti sur lui amadou na ko paajal na ko la frappe d'amadou le gardien qui plonge alors quelle force de frappe Ciao, boleh gini, Bi. Boleh mais.

Thank you.